الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائلا بذلك علاه ثم إلينا وجعل ختابا تكرما وأنفسا أتابا فخمت خائلا وامتثال أمر جميل جل عن مثال يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدمة في خدمة الذي الخديم خدمه يلا وصل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد محلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم وصل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه خطع لما سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساخ لغير الجبرى وصل يا رحيم ولتسلمي على نبيك الشعير العلمي سيدنا محمد والآله وسع به في الحال والمآل يا من يقول لمصل مرة علي عشرا خطني رب بره ولي تواصل بشارات القدر مزازعا لغير نحو الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سميا سل بتسليم بلا انتهاء أني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوسل لذي عشر مئة بجاي يا من حمى عن شيء على نبي كان يمهو بحسن سوءا ويوحز الصعيد من وسن نحم الشفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يلا وصل أبدا وسلم على نبيك الرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل yaa man bi jaay xabilta xalami sëriñ Cheikh bokki tab ak jokkul dawax suran ak guy njoora ngajaga ak bàttal tund bi yëpp ñoo ñëw di leen nuyu si di yàlla siyaare ndax bi nga xamante ne bi yàlla dogal na yaanu jiite ci bis bi di màggaluk tabbi ñu ngi lay ciy siyaare te ñaanal sëñ Cheikh Modou Mokhtar yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba nu ànd koog moom mu liggéey ko ba mu mat sëkk yal na ko yàlla def ñu ngi lay siyaare siyaare boobu xamante ni bii dañu ko tubbee ci seen xol ah bis bi nag am nañu ci mbégte lool ndax teew gi nga teew fi sunu kanam duñu jëmmal amatuñu payam xanaa di fas yéene ànd ak yow loonu diggal nu nekk ca loonu tere nu bàyyi ko yàlla nu yàlla dimbali ba nu nekk ba nu nekk ci lenn loonuy tere di liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci taalube dégg ndigal te wattuy tere yéen mbokk jullit yi noo ngi leen du nuyu te leen siyaare di leen baal àq te di leen baal àq Cheikh Sidi Moukhtar fi yàgg te wér ak njobootu Serigne Touba gépp sëñ Cheikh Coro Mbàkke yal na fi yàgg te wér comme ni ko sëñ Ousmane waxee rek noon la ah bis bi day bis boo xamante ni bii kere ko sëñ Basiiru Mbàkke yebal see fii bindub leetar jox ko ba nu man mi ma fi ci néeg baay bi man ma maa ko jàng sëñ Basiiru def ci lettre ba sëñ Mooda mun munu ko faal munu ko xamloo naa ko xamal naa ko dimbali nga ma ci nag dama bëgg nag nga jàppale ko saabal jox ma lettre ba daal di ne ah àndal ak moom ngeen dem ba ca pénc ma booba bàyyi wér faal mooy yilimaani dëkk bi bu ngeen demee ngeen jox ko ko ba ma demee ma yëg ànd ak moom ba ca biir dëkk ba Mooda Mbay moo doon yéene waa waa dëkk bépp te daje mun ko mu jox lettre ba baye ba baye bi Yacine nar baye bi Yacine jang ko mbolo mépp tew mom seigne Ousmane mi mom mi mo jëk yëkëti ci lamagnam ni ko ah bi de bu nu sañan nga wutal ni bis bo xamanteni bi fi comme ni ko sëriñ bi sa sa wajur wo uh, waxe def ko nga tanal lu bis bo xamanteni bi bii nu bokk dajé fi di di di di di di di fi sante di fi sante sa mam bàyyi bi rek yee si naar ci boppam moo moo mu wax loolu sëñ bi ba nga xamante ni bii loolu am na waa dëkk bépp daje fa keroog keroog keroog la bis boobu tàmbalee moom mi moom mi di sëñ Ousmane ñu ni ko nag kon sëñ bi ni ko nag comme yaa comme yaa jëkk a tudd bi yooyu mi nañ la def ngay njiit li moo waral jataayam bi ba tey muy dem ba jëm jamono kon nag nu comme ni comme ni ko sëñ Ousmane waxee rek tab bi gépp ndax tab bi moom ñëpp a ko bokk tund tab bi la comme tund bi la nag moom kenn génnul kon loolu rek laa aman lu ma ciy wax a ah, di ko di ko di ko ñaanal ci jëmmi sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima Fall sunu borom guddalu fanam ba xamante te xam ni tund wii de li mu ci yéene man de am na lu ma ci xam tund wii de li mu booy seet ni am na ci loo xamante sax mënu ko wax dañ waaye nag buñ doxee diir bu diir bu diir bu gàtt su yàlla guddalu fanam may nu wér di di ngeen di ngeen ci am lu ngeen gis moom loolu moom lu ma mën a waat la kon loolu rek laa man lu ma ciy wax wasalaam jërë ngeen jëf aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq sayidina muhammad ibni abdillah وعلى آله وصحبه waman tabia hudallahi ila yawmi din mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu ak di leen ndokkeel bu baax di nuyu kilifa yu tedd yi yëpp nga xam ni waa kër sëñ Tuubaa lañ di ay mbàkke mbàkke waa njenn waa njóobeen ñoom ñëpp ñu ànd fii nga xam ne ñoo bokk bis bi di sant itam bi ma fi fekkee mbooleem ñi bokk ci tund wépp nga xam ne askan wi wenn la ni ko sëriñ Ousmane Niang waxee e, ma leen di nuyu ci turu sëñ Touba Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal fanaan may ko ak wér ba liggéey bii mu tàmbali liggéeyal sëñ Touba yàlla dogal mu àggale ko ci wér ak kartan ak tal te ñun ñëpp ñu ànd kook moom li Serigne Touba doon ñaan boroomam naa ko rabbi stajib waltu kammil ma nawaytu lada Touba lati bi ka tub naa fii ka buñ yaanaa yéene Serigne du luy jeex ci àddina waaye nag yàlla na yàlla dogal ñëpp teg seen bët ni yéene Serigne Touba jaye bay na ca waar woo xam ne kenn mësu koo bay te loolu yàlla suñu borom man man na ko e, bis bi nag e, niñ ko waxee rek noonu la demee mooy dañ ko woote ginnaaw boo xamante ni yàlla dogal na te mu ci fukk ñaar fukk ak ñett bi ma jógee ñibbi si njàng sëriñ bi yabal ma fii naa ñëw ci sama da ngay dellu say bokk bi ma ñëwee itam nii ko Mustapha waxee rek la nekkee e, ñëpp a daje woon ci penc mi e, bi daje ci penc mi mag ñaa ngi foon kenn di kenn manqué woon jamono boobu e, sëñ Ousmane mii jëkk a laaj ni bëggoon nañu bis boo xam dañ koy taxawal di ko sant sëriñ bi moo sababan ñu jàppaloon ko bis boobee yàlla dogal nag mu ñëw tey bi mu ñëwee tey itam yàlla dogal na mag ñoo ci fi nekk ñëpp kenn nekku fi. kon li sabab bis bi mooy ñu daje ñun ñëpp ñi fi des eh, jàng alxuraan eh, lu waaye man ci tudd yàlla nga def ko lu waay mën ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wa nga def ko suñu mag ñooñu yàlla dolli leen xewal ak yërmande te fi des ñëpp yàlla yàggal leen te ak wér daanaka loolu mooy sababu bis bi ñu koy woote ren itam yàlla dogal ku ne xam na ni eh, suñu koo xam ne waajur la woon du Sëñ Tuubaa sax boo xasee dem ba nekk lootu nekk kenn waaye ku ne xam na cofeel goo xam ni Cheikh Mawlana leen Baara amoon na ko ci man euh, yaatal gu ma yaataloon loo xam ne ku ko jege woon xam nga ko bu dee soxna bu dee taalibe bu dee doom cër boobu ñu amoon ci muy sëñ Touba liggéey fi liggéey bu rëy bu set bu sell sell boo xam ne li muy gàtt gàtt ñëpp teg nañ seen bët moo sababan ren ñu sàkku ñaan yi def yëpp ñu jagleel ko fàttali ko ko doole ko njukkal moo sabab ren lépp lu ñu def ci màggal gi ci ñaan ñu jagleel ko yàlla yokk leer te taasuñ ci barkeem ñaanal itam Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mi yàlla bàyyi fi ba niñ ko wax ci njaal ben naan yeb yalla agale ko ci mbégte nak lañu am lool di len sante di len gërëm ndax bi nga xamanteni yalla dogal na serigne bi sama waajur yobal ma fi ci sama ndjay Modou Fall ñu ñaan yàlla yokk leeram ndax euh, man naa ni lépp moom la ndax euh, musna naa bis bo xam dama ñew fi dig beccëk njolloor waye daf ma genn kër gi ma dem bima genné itam sama mam taxaw fi di joy muy da am rek luma ko bëggal ndax ku ñu war a xam kuñ ku war a laaj da ngaa war a xam kon lam nu doon bëgg lépp ak lam doon sàkk ci ñun lépp tey gis nañ teg nañ suñu bët kon ñu ngi ñaar yàlla suñu borom fay ko euh, fay ko li mu def lépp ci lu baax may sant rek taalibe yi te ak bokk yi ndax lii lépp ci ñaar la tënku ak taalibe moom daan not lépp euh, Sëñ Tuubaa daa not lépp waaye bokk dafay jiitu lislaam jiitu fi ak taalibe euh, tey ñii fi nekk ñëpp kenn ku nekk am nga ci ko jog kudul man kon su ñu ñëwee ñoom ñëpp teew ci sama kanam di diglu ndigal di ànd ak man ci liggéey bi loolu ak bokk ko waral kon ak bokk lu am solo la ñu fas ko yéene di ko jokk saaf bu nekk nag te di ko rafetal kon nag taxawaay bi ngeen taxaw rafet na ñu ci sant bu baax a baax di leen gërëm di wax rek ñu gën a takku gën a ànd gën a liggéey te li nga xam ni moo ñu fi indi te muy jaamu yàlla ñu ñu gën cee feddaliku gën cee laxasaayu gën koy yeesal te lépp nag mi ngi tëngu ci ak taalibe lépp ngi tëngu ci ak taalibe kon nañu leen defaraat suñu bopp defaraat suñu jikko defaraat suñu yaakaar gën a fetlu suñu taalibe gën ko rafetal te xam ne Serigne Touba yàlla moo ko may li mu ko may te may gi minute bu ne day yokk dara du ci wàññi minute bu ne may ko Serigne Touba yàlla da ko yokk kon nag ñuy dañoo war a góorgóorlu euh, buñ dee maam Cheikh Ibrahima Fall bu ne maam Cheikh euh, Thierno maam Thierno Ibrahim bu ne maam Cheikh Anta wala Cheikh Issa Dieng wala Cheikh Moussa Diop Samb ñooñu ñëpp nekkoon ci wetu Sëñ Tuubaa ba am la ñu am tool yi ñu doon liggéey Sëñ Tuubaa tool yooyu mi ngi fi jumtukaay yi doon liggéey Sëñ Tuubaa yi mi ngi fi jumtukaay yi nag ak tool yi weesuwul xol ak pas-pas rek xol yi mooy tool yi pas-pas yi mooy jumtukaay yi Sëñ Tuubaa moom itam ña nekk nag moom la ñu defoon ba am la ñu def ku ko defee Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa defal la def kon nañ gën a góorgóorlu lu baax te xam ni sëriñ bi dara am jógu fi moom Sëriñ Tuubaa xamoon nañ dina génn àddina Serigne Touba xamoon na dina dem ba ay doomam yëpp jeex waaye xam na ne ba àddina tukki ay sëtam duñ fi jóg sëtam yooyu nag la ba muy ñaan ñoom la ñaanal wa thriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyyatil Mustafa tajtahidu Serigne bi bi muy ñaan ay sëtam la ñaanal ndax xam nañ ba àddina tukki sët yi duñ fi jóg te bi muy dem ci géej gi itam bokkoon na li tax muy dem ci géej gi li ñuy wax xut bu samaan dootu dootu génn ci yàlla jox ko xut bu samaan xut bu samaan mooy koo xam ni kenn mënul am dara ci yàlla te jaarul ci yow kenn mënul àgg ci sa borom te jaarul ci yow loolu mooy la gën a tuuti ca xut bu sabaan yàlla sama borom nag fab ko teg ko ci loxo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa it yemu ca ko ni ku rafatale ko ak njabootam njaboot gi mooy ku ko nekkal rek nekk xut bu bu sabaan boobu nag waxuma lu mu bëgg waxuma lu ne ci lu mu ñaan waaye lépp lu ne ci am xelam nag saa def ko kon nag sëñ Tuubaa foofu la nekk sëtam bii nga xam ne moo fi nekk tey di Cheikh Sidine Mokhtar Mbacké ginnaaw bu fi alaaj Baara toogee lépp loo xam ne lu baax la sëriñ Tuubaa liggéey ko ak ak kàngaam yam àndandooloon ak doom yu baax yi yëpp wuutu leen fa lépp lu baax lu fi nekkoon nañ ko fee bàyyi dara yóbbaale wuñ ko ci seenu fay kese la ñu yóbbaale kon nag lu waaye amul rek yaa ko xañ sa bopp nañu góor góorlu te xam ne lépp lu baax loo ne sëñ Tuubaa yàlla jox na ko ba ni xasaa inu rabbi futtihat lii la wax ma nga sini saa borom yi saa borom ubbil na ma yëpp jox ko caabi yëpp te àddina benn magasin rek la ci magasin suñ borom yi kon nag dañoo war a rafet njort war a war a dëddu àddina bi xam lan mooy ak taalibe ak lan mooy ak morit ñu gën caa namm gën caa dugg gën caa sóobu gën a liggéey te xam ne yoonu yoonu liggéey la yoonu jaamu yàlla la yoonu ngor la yoonu sàmm sa diine la yoonu sàmm sa lislaam la yoonu sàmm sa ngor la loolu lañ ci góorgóorlu lu baax ndax sëriñ bi jamono ju nekk mu ngi koy mi ngi koy soññee mi ngi koy fàttali ko te buñ ne lislaam mooy murit moom mooy lislaam ak mourid moy l'islam Cheikh mohammed Mourtala bu mu demé ni Amérique biñ ko laajee lan moy l'islam dañ wa moy lan moy mourid dañ ko mooy lislaam rek l'islam moy ak mourid kon nak l'islam mourid mourid bobu dafa wara am ay aw melokan melokan wu set wo xamni yàlla ni mu bindé doomu adama melal ko ni teral ko koké dafa wara fenc yow modi wala khad karam bani adama wa xamal um fil barri wal bahri wa razaqnahum min at tayyibati wa fadalnaahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan yàlla nee na ma bindu doomu aadama teral ko teg ko ci kaw ñi bind ñëpp yàlla bind na malaayika bind na nit bind na jinde bind na ay mala bind na ñuy raam bind na ñuy datu ci biir ñu ñuy nuuru ci biir suuf bind na ñuy nuuru ci ndox bind na ñuy datngu lu ne yàlla sama borom bind na ko waaye loolu lépp dafa fab doomu adama teral ko teg ko ci kaw ñëpp loolee yàlla bind lépp lu ca lu ca soob doomu aadama soob aadama jëfandiku ko kon nga jooju yàlla teral doomu aadama doomu aadama na ko xam ba teral boppam ba delloo ko boppam bañ a bokk ci suma raddanaahu asfala saafilina ndax la xadd xanaa insaan fi ahsan taqwim ahsanu taqwim mooy mooy jikko lañ ci jublu du melokaan wi kese du melokaan wi kese jikko jooju nga xam ne nag moom la yàlla nit bind naa ko doomu aadama ci melokaanu bindinu rafet la xadd xalax na insaan fii ahsani taqwim nam gën a rafete mooy jikko ndax jikko moo ñu xajaleeg mala nit nag su demee bay def jëfi mela mala mbaa def loo xam ne du jëfi julit te yëgatoo ko amuloo ci kersa loolu suma xata dana asfala saa yi foofu ngay bokk loolu dara jëru ko kon nag nañ leen góorgóorlu bu baax a baax a baax fetli suñu laxasaay mbokk gi ñu dundal ko taalibi gi ñu dundal ko te xam ne sëriñ Touba dañoo war a laa suñu xel te xam ne dara jógu fi lépp lu mu doon nag Serigne Touba fàggu na ko lépp lum mu rek Serigne Touba fàggu na ko koo xam ne ci seen yàlla suñu borom waaye nag teewul nañ leen góorgóorlu foogu suñu bopp ndax saa su nekk lislaam daa ami noonu te lislaam noonam yooyu duñ mas a tegg seen tànk duñ mësa a roppi seen ngànnaay duñ mësa a jógu moo tax suñu borom dina wax naan wa aidu lahum masatun min xuwatin noonu yooyu na ngeen leen foogu kemt lay seen carton carton gi nag niñ leen foogoo nag du ay xeej du ay jaas du ay du ay du ay bomb du ay fital waaye xam-xam bu sell ànd akum xel ak ak ñaw ba fuñ la mën a bëgg a jaar réere la fa fëkk la nga loolee nga mën caa mucc loolu mooy wa ahdu lahum masatun min xuwatin xuwa boobu loolu lay jëriñ xuwa xam-xam la xam-xam bu sell Anda akuk yëg akuk tey akuk dal ba kenn dula la mën a jaar fenn ci sa lislaam kenn du la mën a fëgg sa ngor ak sa diina gën la am amu adina mag ñu loolu lañ fi nekke woon jaamu yàlla liggéey ak jàng te sellal ko sax ci taalibe kon nañ góorgóorlu bu baax yar ak xale yi ñu mat a jàng ñu jàng leen ñu mat a ñu tarbiye leen te ñu xool bu baax melokaan yi ak waxin yi ak defin yi ak yi gu rafet gu méngoog l'islam ñu sol ndax saa su ne loolu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké di di digle jigéen dafa war a col col gu jot gu rafet muur aw yaramam jigéen lu dul xar kanamam lu dul ñaari ndëggoom lu dul ñaari téngam wërti feeñ ci moom góor ñi tam ñu xool la ñuy sol lu méngoog colog lislaam loo xam ne ñu ngi sol col goo xam ne kenn xamul colog lu mu doon ay tubay yoo xam ne dañ koy yëmbaxal muy wadd ñu koy fab di koy roofaat kenn xamul du colug lislaam du colug taalibe jigéen yi col gu ne ñu ngi koy fent ñoom itam te loolee dara du ca lislaam kon sëriñ bi di ñaan ngir yàlla nit ñi sàmmonte ak lislaam sàmmonte ak war may sëñ tubaa sàmmonte war may dëkku sëñ tubaa bi ab taalibe noonu la war a mel ba ngay dox ñu xam ne am murit dëgg nga ne ab jullit xàqan ma nga ne le te loolu ci aw melokaan lay lay lay feeñ te aw melokaan mooy ci col lay jiitu nit day defar boppam ba ku la ku baax ku la gis bëgg la defar sa jikko ba ku baax ku la mindi la dootu néegi tàggoo ak yow loolu mooy melokaanu jullit mooy melokaanu taalibe waaye nag àddina bi nëx na nëx goo xam ne kenn ku nekk yaa ngi jàpp ne alal mooy dara yaa ngi jàpp ne yu xew yi mooy dara te yooyu dara amu ci solo nañ leen dellu ci njàngum sëñ Tuubaa mi leen dellu ci njàngalem sëñ Tuubaa mi roy ci ndax mënoo gis ku gisul sëñ Tuubaa mbaa nga gis koo xam ne ku yar ku gisoon sëñ moo ko yar kon ñoo ngi ak sëñ Tuubaa fekkante ne ñoo sëñ Tuubaa ndax fekkante sëñ Tuubaa mooy lan gis nga koo xam ne sëñ Tuubaa ko yar mbaa nga gis koo xam ni ku nekk nag sëñ Tuubaa ko yar ndax koo gis mu génne ci kër la génne te boroom kër goo xam ne dangaa samp sa kër saxal fa njël takki soxna indi ko fab doom génte ko laa mën a të kon su amee rek yow boroom kër gi la neex nañu góorgóorlu ci jigéen ñi sol colug lislaam xale yu góor ñuy sol colug taalibi gu méngoog tërug lislaam nga xam ne ku leen seen ñuy dox danañ xam ne lislaam ma nga noonee sëriñ bi nag di wax ni saa su nekk day wax ni nit ku ne am na loo bëgg ci sa àddina ak loo xemeem ak luy say mébét loolu lépp nag mi ci ndigal yi ku sax ci ndigal di nga ko am lépp lu waay ji ragal nag mbaa muy sa tiitaange moo xam lu jëm àddina la wala lu àllaaxira loolu lépp ma ngi ca tere suñu borom ya soo ci bëgg soo soo fa bàyyee tere rek mucc ci kon nañ leen sax ci loolu te bàyyi pom yi ak caaxaan yi nga xam nit ku nekk dinga di nga faatu ñu dugale ci bàmmeel te foofu sa jëf dog nga la fay fekk loolu sa jëf du la fa fekk kon nag nañ leen góorgóorlu jëf ji nag mooy sax ci ak taalibi rek ndigali Sëriñ Tuubaa yi leen lu dul loolu ay caaxaan rek la kon maa ngi sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom fekk lu waat ko ay déwén déwén sang su tedd si yëpp maa ngi sant di leen gërëm jërë jëf njol maka noonul asimul xar yara bi من كان في أم القرى مكة خير الأرم nag asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu mbooloo mi euh, sëriñ bi sëriñ Cheikh Thioro Mbacké ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu bi gën a tedd euh, di la sant bu baax te itam di sàkku ci yow suñu nuyu bi nga yëkkatul ko tegal na ko ci loxo xalifi général des mourides sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke euh, sëriñ bi ñëw nañu tey ci gàmmu gi ma ànd ak délégation boo xam ne ngi chef de village bu merina Dakar sëñ Makumba Tine ci ràññee Jaga chef de village bu Njanjaar ak sëriñ Gora Sarr nga xam ne président parent d'élève bu école élémentaire bu merina Dakar ñu ñëw fi tey pour teewe bis bi ziar la ci bis bi ziar mbokk yépp ziar njaboot gi yépp ziar taalibi yépp ñu ñëw fii pour indil la nuyoo président de la république maître Abdoulaye Wade indil la nuyoo premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye indil la nuyoo ministre d'État ministre de l'intérieur Ousmane Ngom ak nuyoo gouvernement bi yëpp indi la it nuyoo gouverneur de la région de Thiès ak nuyoo préfet département bu président de la république daf ñu xamal ne maa ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéen a ma toogal ci gox-goxaan yi fu këru diine wootee ngeen taxaw fa yóbbu fa sama kàddu yóbbu fa sama ziar yóbbu fa sama nuyoo su ñu yebalee kon ci barab bu mel nii. di tabbi faal dañu ciy sant bu baax a baax ndax benn ñu xam ne dëkku taalibi la te ñun ñi yàlla def na itam boole nañ ci njëriñ njabootu sëñ Touba kon ñu ngi sant bu baax baax di ci am mbégte bu kon sëriñ bi gàmm gi na la wóor président de la république ak l' ensemble du gouvernement nee seen la yow a ko bokk lépp moom ngeen fi yëkkati ne leen wóor ne bàyyi nañ ci seen nopp bàyyi nañ ci seen xel kon ñu ngi sàkku ci yow bu baax ak njaboot gi nga ñaanal leen ñaanal réew mi bu baax ndax réew mi fi mu toll dëgg la naam am na ay jafe-jafe te loolu itam nag mën nañ ne conjoncture internationale bi la ci réew yépp la waaye Sénégal alhamdulilah rabil alamina bi nga xamee ne am nañ fi ay kilifa diine ndax soo demee tey ci biir Afrique wala ci biir àdduna bi. gis nga ne réew yu bari am na fa jaxaso am na fa ay xeex am na fa leneen waaye Sénégal alhamdulilahi rabbil alamina seeni ñaan moo tee jàmm ji nga xam ne am na fii ci biir réew mi kon président de la république mi ngi leen di ñaan ngeen gën a dolli ñaan pour que réew mi yépp am jàmm ndax jàmm kat su amee ñun ñëpp am jàmm lii nga xam ne itam ci lañu jëm fi 1900 muy 2012 di élection présidentielle président de la république sant nañu ñu sàkku ci yéen ñaan réew mi dal ñu def ko ci kaw jàmm ak salaam koo xam ne kii Sénégal jox na la boppam nga xam ne yaa ko kon nak serigne bi li moy kàddu nga xamne mom la koy jangal la République won ñi lay gërëm di la sant bu baax di am tam dekte bu baaxa baax salatan wa tusallim bi salam ala allazi hada a baax di nga xam ne ni gàmm gi ñu ngi koy def ci arrondissement nga وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كسرت الظلم كما به محوت الظلم والحجاب وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصعبي في الحال والمال واصرف قلوب من قلوني لسوا ما ساني يا من كفاني مسوا وايش الشيطان والخبيلا مني وابل العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أهلا من غيرها يا من لدي الأهلا واجعل بي عبادة عظيمة لك حياتي ليبت عظيمة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 allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Cheikh Mati Lay yàlla na fi yàgg téwér seen Seydil Mokhtar yàgg liggéeyal borom Touba lool nu yàgg ca topp sëriñ bi noo ngi lay siyaara ci sa bis bii bis bi nag am na ay liggéey yu mag ak ay kilifa yu mag yoo xamante ni si dara ñoru leen lu dul sëriñ Touba ak yow mi ak sa bis bi euh, bi ñu xëyee ci suba ci njiitul imam bi jàng nañu fi ñeent fukki kaamil ak juróom-ñett yoo xamante ni si dañu ko barkeeloo ci sa bis bi euh, Serigne Abdourahman Ñang di kilifa gu baax di wëllëre teew na fi sëriñ Dame Mbacke Touba Kouré Ndiawar teew na fi sëriñ daam jenn teew na fi sëriñ jiili mbàkke teew na fi maam Thierno Fall teew na fi sëriñ ibra mbàkke Touba Mayib teew na fi sëriñ moodu mbàkke moom itamit teew na fi sëriñ alaaji mbàkke bu Touba Céng teew na fi sëriñ cheikh Mourtada Mbàkke sëriñ na Mourtada Mbàkke moom itamit teew na fi dem bu nëga ni xamna naa sëriñ bi daf la fee xawa jitu ndax bis bi rek tax ko jog momit it faaw nu leerale la ko nonu ndax dem bu nëga ni mom mi ngi la jitu ci ci dëkk bi te du dem mukk te sa bis bi agul ni nga ko bëggee préfet merina Dakhar momit tamit teew na fi sëriñ Mbayloo euh, gossas momit tamit teew na fi sëriñ Moustapha Habibu Mbàkke momit tamit teew na fi ay miiru ñing momit tamit teew na fi mul sapay kenn ku am sa pay amul nu ñaan yàlla yàggal sa taxawaay lool te may la wér nga yàgg noo jiite nu yàgg a topp sa gannaaw di déglu say ndigal di bàyyi say tere ni nga ko bëggee ba am ngërëmul sëriñ Sidil Mokhtar mi nga xamante ne si yaakaar nañu ni am na ngërëmul sëriñ Touba te nekkal ko jamono yàlla na ko yàlla ak sëriñ Touba def nu lay sant lool nag ah bu loolu jàllee nag mu mel ni sëriñ Xaadim Njaay tasawuf dañoo wax ni dafay teew nu bëggoon mu barkeelu irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa xalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa xayri xadimihi wa salim bokki tàbbi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel ci bés bu rëy bu tedd bii nga xam ne ndaje ndajem jullit bépp jullit boo xam ne dañ la woo ci loo xam ne aw yiw la soo wuyisee am nga ngëneel yu bare bare bare bari yaa ayyuha allasina amanu stajibu lillahi wa rasuli isa daakum lima yuxyikum ab jullit naka jëkk ba sunu borom wàccee lislaamam ji ak nëgëni des di ko woo muy wuy si yitte yi woote ñépp dañ ko amul waaye ku yàlla mayut yittey woote it nag war na laa may noppab buñ la wooyee nga wuy si ndax wuy ci jataay jullit bari na ay ngëneel ak i njariñ lool saa soo génnee sa néeg wuti fa jullit ña daje ñu fay def mooy tant tantal yàlla ngir sant sunu borom ndax jaam bu ne am nga loo mën a sant yàlla soo jéggee say tànk wut fa mbooloo ma nekk yàlla mi ngi lay yëkkatil say daraja ci bépp jéego boo yëkkati bépp jéego boo teg ci suuf sunu boroom sippil la ca say ñaawteef soo demee ba ca barab ba toog fa malaayka yi di la bind ci ñi nga xam ne dañ leen di jéggal kon loolu jar na saa su nit xëyee di wuti jataay yu mel nii di dem jataay bi nag borom jataay bi di Serigne Cheikh mi nga xam ne daf ko def nee na ngir sante ko yàlla loolu de dëgg la ku ñëw fii da xam ne li bii jataay moom jataayu ngir jëm yàlla la ndax day mel ni ku bëggoon mbooloo rek wala xumbute mën nga koo defee Touba wala nga defee ko Ndakaaru ndax ko boo woy ñëpp ñëw waaye nag ku dikk ba fii nga xam ne xëy na mën naa am lu mel ni boo ko fi defut xol yu bari mën naa am lu ñu war a dégg ci yàlla mën nañ koo gëj a dégg wala yu mel noonu loolu day ku ko def danga yëg ni bëgg nga dundal ay xol ndax sëñ Touba it kat nii la daan def daa dem ba fu dara mu dem nekk fa di fa lëggéeyal yàlla di ko fa ñaan ba lépp fekk ko fa Touba gi nga xam ne keroog ba ko sunu borom wanee barab bi mu nekk fa ne fa cundung bésub keroog ku ko xalaat ci sa xol xam ne lam gisoon yiw woowa ak lu baax loola wuute na ak doomu aadama yam jamonoonteel woon waaye tey ji ñépp xam ne leer yooyee mu gisoon mu nekk ci biir jëmmam ba tax fenn fu nekk mu di ko fa wër ci ndeyjoor ak càmmooy ku ne xam na tey xam na ni njariñ rekk la jural jàmm ku yàlla may nag yitte ci sunu boroom nga am himma war nga lu mel nii dalaa war di gindi nit ñi di leen xamal ñuy jaar ci siraatul mustaqim ndax cheikhul xaddim di léppam jëf la ndax xidmatuhu anil huyu anil ba ashabat wal istiqamatan wa safwan wahabat nee na liggéey bi ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam liñ tuddee ayib moo ma ko dàqal ko xamne ne nak takko nga ak ay tekkaliko nga ak ayib nga xamne ne sa lepp ak mbax la war ngay jégué nit ñi war ngay dem ci nit ñi ndax nit ñi dañu tollu fo xamne ne ku demu ci ñoom aduna fekk ci len fiñ nek nekk nangu leen télé yaang ci biir kër yi cinéma yaang ci biir lepp mbollem luñ daan daw bu ñëk nga xamne nit bu masaan seetaani cinéma bu dikké lu ne wan ko ko tay ji sa biirub nek lañ lay wan lu raw lola kon ku yalla may nga am mana mana am kattan am mbooloo am gis-gis war ngaa def lu mel nii demit fa nga xamee ne boo ko fa defut mën naa jafe nga defee ko fa loola it ngir jëmmi suñu borom la ndax képp koo xam ne kii sant nga wa man yashkur fa innama yashkur lillah ku sant moom da ngay sant ngir jën jëmmi suñu borom rek sant yàlla dafa am solo rabbi awsi'niya an adkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wali wa ku yàlla may way jur yu tedd nga nek ci sen ginnaaw ñu yar la jaar le ci siratul mustaqim war nga la nek ci yow nga dem di jaxasoog nit ñi ngir di yak di len ko di len ko soti ndax lool moy tarbiya lool moy tasfiya lool moy tarqiya tarbiya ci jamono legi ji dafa jafé ngir jamono jotta digi waye nak dir bu gatt nit man nako am ay nit ak ay mbolo lu bare bare bare nga def ko ci ñom ndax jotaay bi de buñ ko defé ci dëkk bi ba genn <clears throat> dana bari gone yu fi juddoo yoo xam ne danañ bëgg a jàngi danañ daal di bëgg a xam lislaam dana leen neex lool te kon loola moom yow mi ko def sax xëy na la nga ciy jublu ak la la ci yàlla di defal moom xamoo ko waaye bu ca kanamee barab bii nu koy defee danañ yëg ne am na lu ñu fi def muy pencal nañ fi yàlla pencal nañ fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pencal nañ fi seexul xadim lii naka jekk ni la yonent bi daan def alayhi salaatu wasalaam ci buntu jàkkam ji ku jàng da nga yëg ne yonent bi da toog mag di fa nekk muy waxtaan ak nit ñi di leen delloo ci yàlla cheikhul xadim ridwanullahi alayhi ku dem njaareem fekk fam daan toog ak gaal gam daan tiim di ci rëddal nit ñi di leen jàngal lislaam nii rek la woon loolu lañ tuddee al xultatu wal usla am na koo xam ne jaxasoog nit ñi mën na koo jariñ ndax nit bu fekkee xolam dafa set bakkanam dem ba ag àgg nuru nga xam ne tàggat na bakkanam ba bakkanam tàggoo ak ayib mu dem ba mu yàgg ñu yar ko jangal ko man na jaxaso ak nit ñi ndax ci jaxaso gi ci la nit ñi di amé njariñ ci mom ndax bët day roy nopp day roy lepp day roy inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sunu borom day wax ni beuti nit ki ak ay noppam ak xolam lepp bu ëllëgëte yowmal xiyaam danañ tok wuññi ko lim doon def ci aduna lenn lu nekk ñu top ko ba xam ndax lu baax la won wala ndax lu bon waaye jataay bu mel nii de ko fi toog lu gàtt gàtt say nopp dana jaamu yàlla say bët dana jaamu yàlla sab xol dana jaamu yàlla kon jataay mel ni jataay bu am solo la ndax jataay buy dundal lislaam la waaye it nag lislaam nii la mel ndax mooy sunna sunna nag mooy yoon woo xam ne dañ koo xar te ku fa dem dégg fa yàlla dégg fa yonent bi delluwaat ci sunu borom ndax al inaabatu sunu borom daf ko bëgg mooy jaam boo xam ne day toog ba mu yàgg rek mu xalaat yàlla yëg ne am na boroom kat te dund dafa gàtt te nit dafa am mission buñ ko fi wax rek mu di ko fi dox buñ ko fi chargé mu di ko dox su jeexee rek day delluwaat suñu borom loola nag nit ki day dox topp yitte yi àdduna yi ba far xelam di ko faay moo tax wa zakkir fa inna zikra tanfaul na suñu borom di ko wax fàttali leen ndax fàttali day jariñ jullit kon jataay bi jataay fàttali la jataay la jataay boo xam ne day delloo nit ñi ci suñu borom jataay la boo xam ne bii bu yaakaar ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngërëmul Serigne Touba mi nga xam ne moo tax nga di ko def ngir di ko liggéeyal mbokk yi fi nekk ak suñu Abdourahman mi nga xam ne ñang mi nga xam ne Touba la jógee eh, ñëw ci jataay bi ak mbokk jullit yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.